Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également gars de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager gain information yi. Bok sénégalais fait pour folle maintenir 14 régions du Sénégal. La World Cup ñi ngi leen di jaajeufal, ñi nekk également ci dal hôpital ci kër du feebar. Yalla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen rek jàmm, ñi nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire gi ñe lañu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa, delluwaat leen seen njaboot ñi de doigt duna suñu borom xal leen àjjana fi daw ci gars yi te yéexee ñu. On avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité en continu continue. Actuellement, hein. on va parler de Kim Donko, qui dit Graham Potter viré, euh, qui dit Nagelsmann, qui arrive mais la saison prochaine. Le remplaçant donc de l'entraîneur de Chelsea, Daniel Warkan la aussi ki nga xam ne donc euh, qui di Milan AC mi écrasé le Napoli mais avant tout gagne yi championnat du Sénégal résultat y a classement et surtout classement baa le jàmbaar de Sali donc on est premier ba Gagne FC ton petit Casa Sport FC Casa Sport bi nga xam dafa perte tey première place am Génération Foot 5 e position Linger Axeneps CNEPS euh, bu Thiès daal ci donc lii ci qui gi ki nga xam ne donc Alioune Badara Baldé ah, donc tay le dugg premier match avec son club bi nga fa ko aller il a marqué dans les arrêts de jeu le dugal donc son premier but avec son nouveau club qui est Alioune Badara Baldé on lui dit félicitations et bonne continuation Sion ki nga xam ne également bonne nouvelle bi wax naa leen ko sànq dañ ciy delluwaat rek mooy Nicolas Jackson mi nga xam ne tey dugal na bii bu exceptionnel la dugal tey ah donc bii bu rafet bii d'attaquant dëggantaan la dugal mais finalement après dafa jël carton rouge comme ni ma leen ko waxee donc il est sorti mais on lui souhaite de revenir Nicolas Jackson un excellent joueur formé aussi par le Casa passé par le Casa Sport kii nag di Thierry Henry tey gis ngeen naa ah, Lionel Messi dafa dugg ñu yóoxoo ko donc et tout Thierry Henry nag nee na moom bu sañoon noonu Lionel Messi day dellu ca Barça parce que ni mu jugee Barça rafetul quoi parce que moom nee na Lionel Messi en tant que grand joueur dafa war a delluwaat ca Barça loolu dal wax Lionel Messi nak instant yi mi ngi hésité pendant ce temps noonu Neymar mi nga xam mom gay gars mom ah mi ngi ni Neymar dal tay di la poster mom ah, ne allez PSG né mi ngi sétane euh, match PSG bi fi mu nekk noonu ki nga xam mooy donc Neymar le brésilien nga xam ne moom it ah, ah fi mu Paris Saint-Germain day jéem xol kan lay nan lay fexe ba débarrassé ci yenn joueur yi mi nga xam donc voilà c'est des blessures wala ay ay yi mais Neymar c'est un excellent joueur mais man sama joueur la quoi mais hygiène de vie war na ko lijjanti Luke Shaw nag moom confirmé na ne léegi mu prolongé contrat am du côté donc de Manchester euh, United donc boo leen déggee ne Luke Shaw gars yi prolongé na rek bu leen bett parce que actuellement daal accord am na si diggante joueur bi ak donc club bi kii nag di Vara moom lañ tànn mu nekk joueur du mois du côté de la Serie A le joueur du Napoli la révélation aussi de cette année moom ak Victor phénomène aussi même ni ngeen ko gisee donc Vara ngeen gis ni gars yi ñu koy donc diko jox li nga xam donc moy trophée bi mu gagné mais le Napoli écrasé par le Milan AC avec bien entendu ki nga xam moy donc ki di Leao Leao aujourd'hui gars donc ah kakao la def ñi nga xam ne donc wa Chelsea da leen a joué na ci côté il est revenu sur son côté et ils ont battu donc ñi nga xam donc ñi di wa Napoli maanaam ci Napoli donc 4 buts à 0 gis ngeen ah donc 4 buts à 0 gars yi ah donc c'est exceptionnel hein même bu fekké ne score bi après ba sànq daal 4-0 digënté yok mais euh, euh, quand on vous dit que dans 10 jours dañu wara dajewat Ligue des Champions dans 10 jours dans fukki fan ah, ñu wara dajewat Ligue des Champions lool dañ na neex ki xamné moy ki di cancelo actuellement dal wa bayern mi ngi nañ gëmuñu né dinañ prolonger li nga xam ne mooy donc lii di prêt bi wala donc di lever option d'achat bi parce que Cancelo gars yi nañ seetlu nañ ne moom su joué wul daal day mer wala buñ ko génnee day mer moo tax daal ñoom jàpp nañu comportement am comme li ko euh, Guardiola doon reproché fee moom lañ koy reproché fii nii ki nga xam ne nag également moom ngeen gis ni ah di Mathys Tel ñii nag Bayern Munich nañ bu fekkee ne Thomas Tuchel du joué boy bi lu bëri donc option bi waxtaan nañ seen Thomas Tuchel mooy boy bi ñu daal di koy abalé ngir mu am temps de jeu parce que dañoo bëgg boy bi progresser loolu daal bokk na ci li waa Bayern déggoo ak ki nga xam ne mooy donc le nouvel entraîneur allemand ki nag di Benjamin Pavard moom bu fekkee ne jamono ji nag li nga xam mooy négociation yi ñoom ak Bayern Dominique taxawoon taxawoon na am ah, moom Pavard nee moom gis na ne mën na des gis na boppam ca Bayern Dominique déwén donc mën na am euh, ñii di euh, ñaari partie waxtaanaat pour am trouver li nga xam mooy ab solution mais nak fi nga xam solution amatul ba am moy li nga xam moy grand Graham Potter waxoon naa ko je vous l'avais dit en exclusivité mi ngi ni nak c'est officiel dakh nañ ko ne na naa la gay réunion et tout dakh nañ ki xam Graham Potter parce que Graham Potter aujourd'hui gars 611 millions le king ki nga xam tot bo Bowley 611 millions d'euros pour mercato bi ñi actuellement ils sont 11e et aussi gars grand Graham Potter ba mu ñëwee ba gars l'équipe gars yi xamé wul lan lañuy football donc en 8 mois le Chelsea également a changé trois entraîneurs Chelsea am na trois entraîneurs dàq nañ Tuchel Graham Potter ñëw na am nañ beneen entraîneur boo xam ne dinaa leen ci wax ci kanam Todd Bowley nag ak ki ngeen gis nii Egbali moom ngeen gis ñe ñu bëri kii lañ xam Todd Bowley lañ xam mais moom Egbali mi ñoo moom li nga xam mooy donc Chelsea donc fi mu ne nii ñoom daal ñoo tàkk waxtaan démb si guddi jàpp ne dañ koy dàq léegi bañ ko dàqee nag gars yi ñu ngi doon wax ay favori naan ñi nga xam mooy donc Mauricio Pochettino ñi naan ki nga xam mooy donc Luis Enrique euh, Nagelsmann lii leer ba leer mooy que li confirmé actuellement mooy que ne contact ak waxtaan ci démb ci guddi gi am na ba ñuy wax ba entraîneur te entraîneur bi ñu fa tudd du keneen ko dul Julian Nagelsmann semaine. mais pour l'instant ki nga xam ne mooy entraîné ba saison bi di jeex euh, mooy assuré intérim bi mooy Bruno Saltor moom ngeen gis ni Bruno Saltor mooy nekk donc l' entraîneur intérim donc du côté des Blues de Chelsea ba saison bi jeex et je pense que ce sera une bonne occasion pour Edouard Diolkoum muy Dogore Mendy mu relancer wu bien entendu si Saltor lui donne l' opportunité mais nag ki nga xam ne Julian Nagelsmann il est le principal favori pour succéder à Graham Potter mais du ñëw ren du ñëw ren pour l' instant loolu la ñu yàppagum du ñëw ren moom il va venir à la fin de la donc la saison prochaine lay ñëw parce que actuellement ki nga xam ne mooy Christopher Vivel nekkoon du côté de l'Allemagne également moom jot na liggéey ak ki nga xam ne mooy donc kii di Julian Nagelsmann mooy kii ni donc moom daal euh, actuellement li mu bëgg mooy waxtaan Nagelsmann indi ko parce que liggéeyoon nañ ak Leipzig moo tax d'accord nañ sur le principe pour que ki nga xam ne mooy donc euh, Nagelsmann nekk seeni priorité par rapport ak entraîneur yi donc Vivel instant yi dina enclencher affaire yi mais aussi li ci neex mooy waa Bayern dañ ci am nampaay parce que Nagelsmann dafa am contrat ba 2026 ba léegi Bayern da koy wéy di fay ba ba mu am entraîneur loolu la ñu wax ba ba mu entraîner benn club boobu Bayern da koy wéy di fay donc Bayern day fay Nagelsmann tant que amul benn club donc moo tax Chelsea buy jël Nagelsmann il faut mu nàmpay euh, ñi di Bayern Munich xaalis bu bëri gars yi c'était les informations que je voulais vous donner dem leen nag abonné ci li nga xam mooy donc Baba Show euh, encyclopédie lien baa ngi ci kaw maa leen ko waxoon dugal naa vidéo bi depuis sànq bu analyse bu ki nga xam mooy Thomas Tuchel nan la fas yéenee jouer ak li nga xam ne nag mooy donc l'équipe de euh, de de Bayern de Munich donc warner Rochi, mais aussi tu kanam tout n'a dugal li nga xam crise année 1968 gars yi solo ñi nga xam ne jànguñu sama aussi xamuñu ko ñu xam na la fa gars yi like woy leen abonné on avance ensemble dans la magie de eSport TV Djangin ngeen